ko rek da neex waaye dara desul. wallaay ndeysaan. li nga war a wax yëpp wax ko sëñ Ousmane. alhamdulilah. leer na naññ. alhamdulilah. li ci des rek mooy ñu jéem a jëfoo tawhid. wallaay. mooy dëgg. hankay. ñu doxal dëgg. hankay. jàmm xam. hankay. suñ ko defee rek sëñ Ousmane. Hmm. coow li yëpp dana jeex. hankay. sëñ Ousmane a ngay wax. Mhm. soxna saa mhm. ngay wax. yeneen eh, yeneen sëriñ saa ngay wax. hankay. ustaas yi foo dellu ñu ngay waxtaan si mbir mi. fa tabarakallah. waa ji nañ jéem a dégg nañ ko déggee nañ ko jéem a ndax eh, ngeen mën a noppale ko yéen itam. hankay. ah. waaye boo déggee rek bàyyi mu dem. wallaay wallaay wallaay. waa loolu kat loolu nañu de. hankay. Mhm. waa ji nañ nañ yan yàlla may euh, dégg gi ni ko déggee yan nañ ko jëfee. loolu li gën a am solo ci mbir mi la sëñ Ousmane. wallaay ndeysaan. mbokk mi kan la mbokk mi kan la ak fooy wootee euh, Malick Touré. Touré Diaba. Touré Diaba ah foofu de ah, xanaa neex na ma ñëw. <laughs> ma ne ma ne ndax ma ñëw. waaw ah, kontaan <laughs> ah, waaw ñëwal. ah weli ngara kay. <laughs> ma ñëw. waaw <laughs> ñëwal sëñ bi. ñëwal ah. bu baax ñu ngi lay pare ñëwal. jërëjëf Touré waaw kay Touré Dia. jërëjëf kontaan nañ trop wax dëgg yàlla ajuma bu ne ñu ngi toog dalaat jëla déglu si wax ji waaye daal dara manqué wul wax dëgg yàlla. yal na yàlla kontaan. waaw waaw yëpp mat na booy yëpp mat na. fa tabaarakallah ñun ñun la. soxna si ñu ngi ko gërëm te di ko sant moom itam. ndeysaan jërëjëf. gis nañ taxawaayam dëgg dëgg rafet na wax dëgg yàlla. alhamdulilah lislaam rek moo ko ñor wallaay ndeysaan yal na ko yàlla fay may ko fan ak wér amiin yaa rabbal alamin dana jëriñoo njabootam yaa rabbi amiin yaa rabbi ci daraja yonent barke alquran barke Makka Medina jërëjëf Touré mu sali àlla sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulilah jërëjëf jërëjëf ah, jërëjëf sëñ Ousmane waaw jërëjëf waaye eh, Alaaji Ousmane waxtu wi nag mu ngi mel ni mu ngi ñu bugg a xooj eh, li ci des bareetul bu dee ah bon nag eh, Euh, foofu daal xam naa dañ ko fa tënka. waaw jaay da ni nga ko waxee noonu la. Mhm. xam naa danañu dem sax ba ci kanam. Mhm. su mënoon a am. Mhm. sax ñu am blackboard. waaw danañu foo xam ne. ah kay mun na am euh, waaw danañu. àggi àggi foo xam ne dana baax lool. pour ñu am lu demee noonu. ndax mbir yi gën a leer. di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp soxna Aida. kon nag jërëjëf El Hadj Ousmane yow ñu laa gërëm bu baax a baax xam nañ ne bési àjjuma bi bés bu xat la ci yow e, waaye nag ñu laa ñaanal rek yàlla may la fan bu guddaw ànd ak wér. te li nga wax ni nit ñi dégg ko te fexe ñu jëfee ko comme ni ko waa ji waxee rek yàlla na may ñu noppi dégg. te ñuy ciy jëfu e, lépp loo xam ne moo ñu si jëriñ ñun ñëpp ñu bokk ko. E, fii nag lañ leen di tàggootee ci suñu daara ji. ba beneen bés ba incha allah comme ni ma ko waxee rek dinañ koy baamtuwaat talaata. ñetti waxtu yi ci bëccëg e ku ko ci bugg seetaan mën nga koo toppa ci waxtu woowu ñu gërëmati bu baax Alaaji Usmaan gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéen a ñu toppa ci suñu daara ji ba beneen bés bu ay seen xarit ay Diop di leen gërëm jëf إله moo gën a def leen nii la xolaa

وغص إلى رسول سبيلا فتو شاهدا مأمونا والمأمونا كبك رسول الله برد بي بر شريعة ختما أما البسيطة أردها وتولا رسول الله برم بي شمس النبوة أسلخت أسقي جابت ولم ترى في الوجود أفولا بلد بذات النبي محمد كم جابت بلقائها جبريل رسول الله في مكة جايل عليه وأحلها ما كان فيهم خدر مجحولا أكرم بأنصار النبي محمد أصلا وأكرم بالمدينة خيلا يا رسول الله أكرم بكل سحب لم نسمع لهم بجمع سحب الأنبياء وسيلة بن الأسافل لم يناقص فضلهم بل زادهم بين الورى تفديل يا ربنا يا ربنا رجعنا منخدنا من كل ما يبدأنا يا ذا البقاء والقدم صل صلاة يا خريب على نبيك الحبيب خير مهيد وقريب سيد كل أمم. أمم صل وسلم يا عظيم أنا نبيك الكريم سيدنا عين له وآله وسلم سل على خير البشر أحمد نعبة مدر والآل أهيار زمر وآله وأمم شيخ الحاج عبد الله السمار جنانا لا يا كلارم تكاسلو سي أكوني أمين يا رب ما سلفان زي مصطفى والعالي أحلي صفاه زي مزايا العنجمي يا عبد وابكي ما مدى آه، من الذنوب والخطايا ورد بمن لا وخدا في ملكه وسلم وتب إلى الله العلي آه. توبة عبد وجليل قبل الأولول الأجل مستغفرا مستقيم شيخنا لا جبد مالك نين هو القفور يرحم من جاءه يسترحم هو رحيم المنهم فرس به لتستهم وكل من لاذ به ينال عند ربي مطلب لقربه يا